na si li nga xamante ne nous devons avoir euh, euh nouvelle assemblée okay. pour ñu mën a teg li nga xamante ne nii moo di loi yooyu pour mën a euh, delloo li nga xamante ne askan bi moom la moom. ok merci merci merci soldat lu am solo la wax am jëm ci moom ñoom li leen intéressé rek bokk na ci loi si boobu parce que intéressé na beaucoup de sénégalais yi. Mm-hmm. yu bëgg que justice soit rendue euh, te loolu mënuñ ko def tant que assemblée bi taxawul xam naa ci loi yi njëkk a voté ci lay ci la ci la war a bokk Moustapha assemblée. am na lu leen di xaar notamment parce que euh, nit ñi peut-être ñu ngeen ñi ku nekk bëgg nekk député wala bëgg dem défendre askan waaye ci biir assemblée bi jàpp naa ne parce que on veut une assemblée de rupture askan wi fi mu toll nii lépp loo lépp lu ñu dugg rupture lañ ciy xaar assemblée bii hmm, lan lan lan la moo koy xaar dëgg-dëgg ci en terme parce que am amnistie bi tudd nañ ko la loi sur l'homosexualité mu nekkoon coow loo xamante ne ba léegi aussi euh, si si vous bien ci campagne législative 2022 yi hmm. daanaka moo daaneel ñële Euh, lan lan nga mën a jàngate ci ñaari point yooyu ak ak yi ci des. waaw xam nga député ñoom d' abord il faut que ñu xam li leen war ba noppi. Hmm, ah parce que lool c' est important. Hmm. bu njëkk ba li ñu daan am mooy ñi nga xamante ne ñooy parti au pouvoir. Hmm. ñoom mën naa utiliser mën naa ne ñoom ñoo daan tilimal wala ñoom ñoo daan xajamal assemblée nationale. parce que dañ daan def ñu jëlee seen liste yi dañuy xool ki nga xamante ne daanaka si parti bi wala moo gën a ñi ñi gën a néew doole wala ñu amul fu ñu leen yóbbu ñu tibb leen yóbbu leen assemblée. Mm-hmm. loolu bokk na si li nga xamante ne dafa daan néewal doole suñu assemblée. récompense la woon daal. waaw récompense koo xam ne seetoo ndax am na profil bi ndax am na xam-xam bi ndax am na mais dama naan dama la koy dama koy yóbbu assemblée parce que amul fu mu jëm. Mm-hmm. te loolu c'est un a le y boo xam ne war na koo mën a am bokk. Mm-hmm. maanaam bu ministre di wax sax mu toog di déglu war a xam li ñuy wax. mais koo xam ne bu ñuy toog mi ngi seetaan novela si téléphone <laughs> parce que dara intéressé ko. Moustapha loolu moo am. novela ah, la seetaan wala ñuy seetaan théâtre wala. seen ah bu ñu tudd suñu yëf. pire ñuy nelaw. xam nga kooku tey ji xamul ko fa indi. Mhm. léegi lan la toog bi mu toog luñ ko wax Macky nee na dañ koy voté bu ñu nee vote commencé na ñu yëkkati mu def nii. Mhm. bu paree jël ay am dajale ko dem ñibbi. Mhm. yeneen député ñëw voter des lois dañoo war di contrôler l' action du gouvernement. Mhm. xamuñu ne dañoo war a évaluer l' action du gouvernement. Mhm. xamuñ ci benn. ok waaw léegi nag yooyu tey jii doon nañ bëgg euh, moo am ay coppite. Mhm. maanaam ñi fay dem doon ay député yoo xam ne ñu mat sëkk lañ leen di doyee la mat sëkk loolu mooy li jiitu maanaam fees dell place bañ leen teg te fees dell place bañ leen teg du weesu mooy nga amal leen njëriñ boo jëlee par exemple député mel ni Guy Marius à chaque fois mu ngi doon interpeller gouvernement bi fu mu toll mi ngi la doon interpeller mayu leen ñu centimètre loolu dafa am solo kooku xam na lañ ko fa yóbbu mu am yeneen ak yeneen yeneen député yoo xamante ne amoon nañ taxawaay bu mel noonu boo xam ne mën nañ koo rafetlu kon boo jëlee profilu député ba pare après bu ñu demee ci texte yi nga xamante ne ñu ngi xaar ñu laal ko man je ko cot yu bëri code yëpp pour ne pas dire yëpp war leen laalaat ah bon ah am na yu bëri yoo xam ne laajaat na ay réforme laajaat na ay toggaat dalee ko ci code pénal bi code électoral bi code de procédure pénale bi code minier bi hmm. na code yu bëri fii mën nañ leen laalaat ndax xam ngul tax am na ci yu bëri yoo xam ne ni ñu ko doon tëggee dañ doon bàyyi xel exécutif bi hmm. maanaam ak lépp moo tax ñu naan ñu wutale assistant parlementaire te amoon hmm. nañ ko waaw moo tax ñu ne dañuy wutale assistant parlementaire parce que tamit war nañu mën a outiller tuuti quand quand même war nga mën a am tuuti. Mhm. mais doon koo xamante ne par exemple li ñu fi doon gis man am naa seen benn waaye daf ma daan téel benn saak xaw ma fu ma koy dugal. Mhm. élection am na nga dugal ko ci si boo jëlee l'exemple de Kouramaki. bëgguma personnaliser débat bi mhm. mais bu jëlee ba bu jëlee parole lu muy wax lii gën laa indaaleeg kii dinañ koy firir dañ koy daggateeg <laughs> mais loolu loolu nan lan lay nan lay jàngalee en fait yow xam xam nga loolu moo tax xam nga assemblée ñëpp xam nañ ne kër la goo ne mënoo fa dindi politique mënoo ko dindi donc moo tax da am ñaari profil da am technicien da nga am koo xamante ne ruubekat la. Mhm. da am koo xamante ni moo lay dimbali ci taxawaay bi wàllum euh, di jàppale le ministre bu ñu ñëwee. technicien mooy doon boo député boo xam ne dafay carré. Mhm. moom day ñëw ne la ne la loi bi comme genre Mamadou Lamine Diallo. waaw si bu ngeen fàttee jël règlement intérieur bi tëjoo si biir modifié ko Mamadou Lamine euh, taañaañal leen ba ngeen xam ne yéen ñii da ngeen a falsifié règlement intérieur bi. Mhm. kooku c'est moom koo xamante ne ruubekat lay doon. mais ruubekat yi waay waay waruñoo bëri nag. parce que xam nañ ne këru këru politique la mën nga ci am benn bu gaa yi jëlee kàddu moom mooy ñëw jëf show bi politique yéen waru leen wax nangam ak nangam parce que assemblée bi noonu lay doxee absolument foog moom ñoom dañuy ñëw taxaw opposition bi sonal leen mais ñooñu bu ñu bëree rek assemblée bi jeex na mais régime bi passé dañu gisoon ñooñu dañoo bëri lool juróom bu ñu waxee ñaar buñ ci waxee lu am solo ci opposition bi la ñu jóge wala bu dee si ñoom la ñu jóge benn lañ war a ñaar. Hmm. te loolu baaxul woon. mais espérer nañ nag ne ci régime bi. xam nga déggoon nañ sax ay député yu taxawoon ci assemblée nationale wax ne loi bi man ji lijjantewuma la faale wu

ci code de procédure pénale bi am na yu bëri yoo xam ne foofu ñu xoolaat ko. parce que tey jii par exemple mënoo ñëw euh, nga ne da nga bëgg euh, séparation des pouvoirs am. nga ne da nga bëgg wàññi doole bi nga xamante ne moom la procureur am. léegi nga ne procureur par exemple bu viser telle infraction diffusion de fausses nouvelles bu viser infraction yu mel ni jëm ci terrorisme article cinquante ak nga ne ko le juge est tenu de mettre sous mandat de dépôt. ba pare nga ne le juge il doit être libre il doit être indépendant dara woo koo tënk. mais yaa ngi bëgg mu li ba pare nga ne ko. moo tax euh, affaire Aliou Sané bi. Mhm. juge bi ah, la toppee ci chambre d' bi mu demee fa dañ koo kase dañoo jox procureur dëgg xam nga lu tax mm-hmm. parce dañu juge bi tu tenu waaw procureur dafa visé ne waa ji lii lañ koy toppee ni donc da nga war a def sous mandat de waroo ko bàyyi mi ñibbi donc ñu ñu wëlbatikuwaat jàppaat saa ne mais loolu la yooyu mm-hmm. tamit il faut moom ay joyante yoo xam ne dañ ko ci def mm-hmm. te loolu pour man groupe parlementaire yi ñu ak député yi ñu nañ ci taxaw baax a baax yaakaar naa ne campagne kiwu campagne la woon ci élection législative yu 2022 ñu bëri nga xaar mu ñoon diine yeeg ñëpp ñu ngi xaar aussi ne loi boobu c'était une promesse de du premier ministre Ousmane Sonko au opposant la mu taxaw wax ne moom bu faloo bokk na ci loi yi mu njëkk voté mooy la loi euh, sur l'homosexualité waaw gisoon nga sax si ñoom defe naa moom ñu yàkkamti commencé di di mettre devant mu nekkoon rare rassemblement boo xamante ne homme politique ñemewoon na faa ñëw toog mm-hmm. donc je pense que ba mu koy def mesuré woon na li nga xamante xamante ne mooy mooy attente yi ak li nga xam ne mën na ko cee fekk. Mhm. parce ak lépp lu ñu mënti wax nag. ay groupe de pression lañ yoo xamante ne tey boo ko si ñëw dina bëri si ñoom ñoom dañuy taxaw di leen seetaan Sénégal ba noppi di leen déggoo ay ndëgg sërëxal. Mhm. naan dañuy fexe ngeen daanu. Mhm. parce ñun moom ñoom boo fekkee dugg nañ ci sport bi dugg nañ fu nekk. donc boo boo jëlee di mesure boobu rek. dina am taxawaay boo xam ne mën nañ ko am maintenant ñoom nag je pense que ñi ngi anticiper parce que boo gisee lu jëm ci financement beeg yu ni mel sax bàyyiwuñu xel lu bëree bëri bëri maanaam ab bi beeg lebb gu metti beeg yooyu naam ci la bokk mhm. ne am na ay niche yoo xam ne war nañ ci mën a tibbee xaalis pour mën a doxal réew mi maanaam ñi daawul fay l'impôt fay eh, nga xam ne tamit euh, warloo nañu ak réew mi xaalis ñi di fay donc yooyu mën na leen dimbali xam nga xam xam nga Macky Macky Sall li warloon mu mu mu dépendre lu bëri ci bitim réew moom léppam leb léppam leb la woon mhm. Macky daa leba leba lebale ba ñun ñoo ngi ni ku nekk 900000 tegu na sa bopp 900000 francs te loolu xamuñu kañ lañ koy fay. <laughs> kon xam nga moom euh, xam nga nit ki fekk lépp mi ngi lay yomb. Mm-hmm. yow maanaam pour togg añ añ boo xamante ne boo xoolee sa dépense su kër ne 3000 la sax day dem lebi ji 10 000 francs. waay mm-hmm. parce que xam kooku danaa laan 10 000 mën nga ma kaa fay saa waaye 10 000 fay ma ko 2 mois. Mm-hmm. balaa 10 000 yee jeex mu ñëw lebaat 30 000 francs. te 30 000 waroon naa ko mën a pourtant mënu see ñàkk mais déedéet damay dem lee parce que yomb na ma. mu mhm. neex tubaab bi du ci dugg. Mhm. parce mhm. ay bailleur ak ñooñu lay sóor tey ji mais li ci gën a métti sax mooy na mu doon lebee. lépp defal teer teer boo xamante ni ba léegi yow yaay dugalaat sa xaalis si biir de nit ñi ñu ngi fay de waaye da ngay dugalaat sa xaalis si biir lépp defal ci quatre cent et quelques milliards mm-hmm. yow yaay jëlaat sa xaalis dugalaat ci biir di subventionné ay ticket donc ay financement yoo xamante ne c'est vrai am na solo lépp defal euh, stade Abdoulaye Wade mm-hmm. boo xamante ne entretien bi rek ñoom ñi koy wax nañ ko est-ce que man stade Abdoulaye moo gën a yomb <laughs> yi muy jël par année stade de France du ko jël <laughs> loolu ça pose problème ça bi nga xamante ne ñi ngi ko fa doon def mooy mix bi. Mhm. bañ ko def amoon ay spécialité toogoo ne bu ñu ko fi def entretien bi rek maanaam problème la. c'est de l'argent donc loolu kon pour man yëpp ay façon de faire la yoo xamante ne il faut que régime bi tamit jàng. dox ak moom. moo tax ma ma ma jàpp ne réforme euh, lu xaj assemblée gis gis ngeen la loi sur l'homosexualité du am gàllankoor. non pression internationale pression des institutions yi nga xamante ne aussi euh, Nations Unies yooyu yëpp accords yi nga xamante ne état yi dañ koy signé. non am na dëkk yu fi criminalité te deewuñu nag. loolu tamit am na. Mhm. dans la vie moom boo jëlee yenn décision il am na dëkk yu ko fi climat te deewuñu mhm. donc bu sàmba bañee bàcc nangu mhm. man loolu laa gëm comme campagne nañ ko fi am fi taxawaay wax ko fi nañ ko jëfee mhm. ok <laughs> merci merci Moustapha ma ñëw ci Yolande euh, Yolande euh, assemblée bi ak leen di xaar Hmm, parce que assemblée c'est c'est institution boo xamante ne tey jii jàpp naa ne institution bu am solo la ci ci réew loi yëpp fa lañ koy voté. Mhm. Ah, euh, kon euh, ñii di parlementaire yi quinzième législature yi am na lu leen di xaar au niveau de l'assemblée nationale. Mhm. ci ay loi bi l'homosexualité euh, ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne aussi mi ngi leen mi xaar. <laughs> c'est très difficile de parler après. après <laughs> Moustapha ah, <laughs> soo waxee après répétition lay doonaat. Mhm. parce que daanaka moom day tënk lépp. c'est très mhm. difficile de parler avec euh, euh, après lui. Mhm. mais quand même euh, fi li mu wax sànq ci profilu député yi. man surtout fa laay gën a sukkandiku daal. ndax tey ñépp sañ nañoo seede ni suñu woon assemblée nationale bi jàll suñu la woon limal benn député du peuple. ñëpp xel yëpp kenn rek lay daj muy Guy Marius Sagna mm-hmm. comme ni ma ko ko